loolu rek dal na xel waa suñu waajur bu góor bi Aliou Sow ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sàpp ñaan bu baax a baax ci moom ndax seetaan ñu benn yoon dëgg yàlla di nuyu tamit suñu père père ba mi nga xamante nii bàyyiwuñu ci dara lépp lu ne rek mi ngi ci lépp lu ne soo ba ngoon mi ngi ci wax dëgg yàlla ñu ngi leen gërëm di leen sant di profité di yi fi daje yëpp ku leen rek di nga juum bul gees xoolal waaw ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku nekk si tur sant bi ñëw officiel bi nuyu nuyu leen ñëpp nuyu leen ñëpp sama xol sedd na buy wax dëgg yàlla sama xol sedd na trop waaw di profité di nuyu nag ñi nga xamante ne ñoo fi daje ñëpp ñi fi daje ñëpp amuñu seen fay ñi ngi leen nuyu di profité wax ni am na na fu ñu neewoon pendant des années et des yàlla mooy dogal ànd yàlla mooy dogal maa ngi leen nuyu ñëpp écrit maa ngi leen nuyu sur Abbas Ndoye di leen ne sàkku ñaan taxawal naa mbir maa ngi leen sàkku ñaan ñu sax di ma ñaan di ma jëm ni yàlla dafa ma ci ndam incha allah waaw di profité rek ndax bon bu ma ubbee école li bu mel nii dama ko war a ubbi ndax sama ay morom rek ñoo ko fay ubbi wax dëgg yàlla mais dañ koy ubbi autrement autrement mooy yemuñu ci bëre simple ak bëre doon rek boo gisee ñu dem seeti ku mel ne Laye Ñombor ku mel ne Lato ku mel ne Balla Diouf waxtaan ak moom c'est parce que dañuy viser loin dañoo bëgg a former ay lutteurs olympiques ay champion yoo xamante ne dem bëri ji ay euh, champion du monde ay champion d' Afrique maanaam ay champion olympien mais ku xool day MMA bi ni mu émergé dugg Afrique kon war nañ ñu profité yokk suñu ay leneen suñu ay division yokk loo xamante ne nii. qualité waaw dinañ am ay champion yoo xamante ne nii day jéggi ay doy day romb Paasow dina romb Modou Lo dina romb kenn ak keneen. macha allah li ñu def làmb du bëgg suñu rakk yi ñëw fi dëkk parcelle def plus. Modou Lo bu nekkee roi des arènes bëgg nañ beneen roi des arènes ak champion du monde champion d' Afrique loolu la ñuy reefee loolu ñu bëgg a formé ci ñëpp nag di profité nag di di remercier Modou a baax a ndax bu ma bu ma bàyyi ndax Modou xarañ Lo bàyyi nga ki ma war a bàyyi ndax booy la boo xamante ne nii xoolul succès xoolul xaalis respect la wàccee moom ba suuf fu ngeen ànd mu wàccee moom ba suuf man nag ku ma yëg dama faale ku ma faal dama faal te moo tax maa yëg woon ma si boppam kon dina ko móorloo sax su ma gis dama koy téye kon nag maa ngi ko sant bu baax baax di ko nuyu si turu benn mbiram ñu ngi waaw di profité nag Rachel académie nag bi ko installé biir parcelle c' pour parcelle yëpp parcelle yëpp amuñu frontière waaw di wax ne daal entraîneurs yi sant naa leen monde lamb yi fi daj yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di sant la presse aussi amuñu seen fay wax dëgg yàlla man sama xol dafa seet ndax woon nañu wuy rek dafa nekk. dëgg sant naa leen gërëm naa leen. wasalaam. jërëjëf Père Aziz am.